audu billahi min asaytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar bu baax te di leen nuyu nuyu bu islaam muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen jaajëfal bu baax a baax di sàkkuwaat ci yéen bu baax a baax rek ngeen abonné seen seen youtube bi nga xam ne ay njëriñ rek moo ci bàyyi ko ngir jëm si jullit ñi ci seen yëngu-yëngu ak seeni liggéey ak seeni jafe-jafe àdduna te lépp bàyyi ko ci alxuraanu karim tey nag ñu dikkee leen secret boo xamante ne bii ci wàll wërsëg lay dox muy képp koo xam ne da bëgg ak ubbeeku ci wàll wërsëg secret bi nag turi borom la yu am solo yoo xam ni buñ ko tuddee ku nekk dana xam ni loolu lu wér la waaye ñu ngi koy def ci diggante ginnaaw boo jullee fajar ba pare bala ngaa julli suba. bismillaahi rahmaani rahiimi allahu fataahu wahaabu razaaku samadu xayul qayum jaamiu qahaaru baat yooyu ngay wax neuf maanaam juróom-ñeent da tey teg allahuma salli ala sayyidina muhammadin alfaatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasir alxaq bilxaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم moom itam nga def ko neuf fois muy maanaam juróom-ñeent képp koo xam ne saxal nga ko sunu borom dana defal saa boo xëyee danga nga am wërsëg wala bett bu kawe njorto lool ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di fàttaliwaat bu baax ngeen abonné seen seen YouTube bi nga xam ne njëriñ rek moo si bàyyi ko ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.